يكون لممكن يا من له كن فيكون ملكتني أعوذ بالله من الشيطان ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi ñu nuyu bu baax ak téléspectateurs yi nga xam ni ñoo jàkkaarlook seen télévision bii di Thiès TV ni ñu ko daan defee saa ne rek seen télé bii ngeen miin ko ci keppaaru góoru yàlla ci keppaaru nitu yàlla woo xam ni bi mu wàccee ci kaw suuf mission bépp li ko ñoroon mooy wan nit ñi ñu yonent yi mooy maamam waaye jël lépp delloo ko Cheikh Ibra mu nekk Sërif Abdourahmane Tilala Fall ñu ñaan suñu borom yàlla yokk ay leeram yàlla dogal chaque at télé bii di Thiès TV daan ñëw ci bërëbam ziyaaranteeg moom jëkk ko suñuy micro ndax message am doon na message boo xam ne ñëpp koy bàyyi xel waaye tey bi ñu ñëwee fekk fi taawam wii nga xam ne tey moom la yàlla dogal mu toog ci xalifaam di sëriñ Abdou Aziz Fall mate na ko sëkk ndax na waajuram meloon rek loolu lañ gis ca moom waaye nag am kàddu yoo xam ni bi ñuy ànd maa ngi koy wax oustaz Moussa Wade ni sëriñ Abdourahmane Tilala Fall daa mel ni xamoon nay mbiram ndax buñ demee ci image yi baañ dem ci internet yi lam ma mujjee wax mooy ne ñëpp yeewu ndax àdduna léppay gaaw waaw sa baay moo ma wax loolu sa waajur ni ma àdduna léppay gaaw bu ñu demee ci internet bi xool archive yi nit ñi nañu jaamu yàlla nañu jub nañu maanu nañuy xool lu baax nañu rafetal ndax fii àdduna toll léppay gaaw kon bu yàlla dogalee muy jëmm joo xam ne kon xamoon ne lépp ci àdduna ba tey ñu ñëw fekk fi ci nga xam ni mooy njabootam di ñaan suñu borom yàlla yàggal la fi waaye nag mu seddu ñaar seddu Touba seddu Tiwaawan kon nag la Serigne Fallou amoon am nga ko tey mën nañu yaay senegal ñu ñaan suñu borom yàlla gën la taxaw yàlla gën la sàmm dañuy jox rek jëwrin muy yëkkati kàddu ci turu sëriñ bi ndax niñ ko waxee rek boobu ba tey lu dul ci bis ba waajuram génne àdduna te leen ko seen ci image muy lu mënul ñàkk ndax presse jege fa waaye boobu ba tey kenn séenu ko ci image ndax toog toog ba nga xam ni laay maamam toogoon ndax Serigne Mansour mooy wax naan gaynde gaynde rek lay jur kon Serigne Abdourahmane bàyyi na fi komate kon nag ñu jox rek jëwriñ mu yëkkati ci kàddu sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi nuyu nit ñëpp ci seen tur leen fay seen sant di jaar ci télévision bii nga xamante ni mooy Thiès TV di nuyu askan wi yëpp ci biir réew ak ci biti réew waaye di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sa borom yàlla yàggal ko fi te ko ba naa li maamam yëpp mu eggale ko te bu mu am menn ndog te mu ànd kook ñun ñaan gu mel noonu ñoo ngi koy ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb Fall mi toog ci jataayu maam seex Ibrahima Fall bi ñoo ngi ñaanal tey sàkku tey dagaan tey yalwaan yàlla sama borom mi nga xamante ni ab dogal ci loxoom la nekk mooy leer ak ngërmande ak yërmande mu defal ko sunu jàmbaar ja Cheikh Sirif Abdourahmane Fall Tilala xaadimul xaddim waaye di sàkku nag tey ñaan tey dagaanaat yàlla mu faw xaal ñu dëgëral ñu yiiral ñu aaral ñu muccal ñu musalal ñu mosalal ñu kii nga xamante ne mooy suñu yaakaaru tey jii ak bu ëllëgee Cheikh Sirif Abdou Aziz Fall Tilala sa borom yàlla gën ko fee yàggal te wéral ko te dëgëral ko ñoo ngi sant bu baax nag ci jataay bii nga xamante ne ñoo ngi koy jataay ak yéen muy waa Thiès yi ci kóllëre gu mat ak ngor gu wóor a wóor wóor daaw ci waxtu wi sëriñ bi ci la tàggoog ñun te ci seen xarale yi la ko jaarale woon bi muy am maa ngi waxtaan ak benn doomu sëriñ bi ak mustafaa Jarbaatam ak sëriñ Cheikhouna Fall doomam nan leen sëriñ bi daal ñu ngi wax ci waxi màggal moom muy wax ci waxi dee ndekete yoo booba lañu alerte alerté màggalu daaw la ñëpp mës a gis ci tàkkusaan gi sëriñ bi wax na mu tàmbalee ba fi mu yem te mësu koo wax mooy wax maay jot li waaye waxoon nañu ni kër gi kat bu déwénee day am geneen xarkanam kanam noonu lañ ko waxe liyaaru ko waxewu ko neneen dani bu déwénee na kër gi am beneen xar kanam noonu la ko waxe bu xeesa fi nekkoon daaw bu ñuul a fi nekk ren waaye nag ku bokk ak ñëpp nag di mbokkum Sëriñ tubaa ca maam Maaram di mbokkum maam Alaaji Malick ci càllale gu wóor moom mii sëriñ Abdul Aziz soxna Faat Kiné Sarr moo ko jur soxna Faat Kiné Sarr sëriñ Abdourahmane Sarr mooy wéy juróom moom lañ tudda sëriñ bi sëriñ Abdourahmane Sarr soxna Astou moo ko jur mu maam Alaaji Maalik sëriñ bii toog soxna Faat Kiné Sarr mi ko jur soxna Xadi ko jur caatu sëñ Babacar Si kon dama ko daan wax naan ko ci dunduk baayam laa ko daan wax naan ko français nga allemand nga kon dama ko waxoon ni ko dama daan wax sa baay naan ko yow kat ku la way wëndeelu ndekete boobu sëñ bi takk ndeer bi la woon yow mii yaay jëmm ji doomi Sërif Abdourahmane surtout sëñ Babacar Si surtout maam El Hadj Malick teraanga weesuwul loolu waaye nag kilifa aku sang bokkul ku doon Sërif Abdourahmane di kilifa waaye ku ko doon doon it di sang moom ab sang la ndax jiit ko. la ñu noote ñun ñëpp la waykat ba waxoon Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ni ko mbeddum teranga nga ñu sol ñun ñëpp moom mbeddum teranga la ñu sol mooy nekk ci li nga xamante moom la nekkoon xam nga fi ne lu soppiku mooy bi fi wuy juróom di nekk kat jataayub suuf la daan toog démb dama ko fekk mu toog suuf man ko nanu sëñ bi dimbali toog ci kaw nga xam ni njatt aw loosam ak toog suuf da ko tàmm keroog mas naa ko bis ni ko sëñ bi waa ni sëñ bi njettaloos bi moom ndax da ko doon entraîné wala nan la ko mane ndax sëgg mënta yàgg ci ñetti waxtu ba ñeent ba juróomi waxtu waaye gis nga li maam yi baax baax baax baax yëpp doxewul loolu doxewul loolu Sërif Abdourahmane ci wàllu ndeyam sërifatu lig laag ma la ci wàllu baayam ay tikaarit lañ mu dina la muy bete bete sërif seexi daay maami sërif abdaati mi toog yar ko moo ko njëkk wax ni ko sërif abdourahman sëriñ Touba moo moom ni ko di nekk ci kaw sa ñëpp nekk ci suuf waaye yooyu mu doon yëpp tam bari doxewul loolu dafa wuutu way juram ci jomm ak ngor ak njàmbaar gu wóor waaye ak nekk ci ndigal keroog bañ demee ci Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na fi yàgg daf ni damaa jàppoon ni daf ni ko comme pas-pas baa ngi fi yitte ji lépp a ngi fi damaa yaakaaroon nag ni sëriñ bi daf ko yóbbaale waaye ndekete fi la ko bàyyi sëriñ bi yóbbaale dara lépp fi la ko bàyyi mu ànd ak ñun ci ngor ak njàmbaar ak bëgg lu baax ak ragal gàcce ak tënku rekk ci ndigal noppam bi déglul kenn ku dul sëriñ Mountakha keroog bi mu waree yóbbu addiyaam ji ni way wu baax wa defoon la def sëriñ bi bi mu yóbbu addiyaam ji dañ ko ni faal comme màggalu poroxaan semaine bii rek la te sëñ bi bàyyi ba màggalu poroxaan mu yóbbaale addiya ji benn yoon sëriñ bi ni bu ma ko deful bu ma faatoo nag ci diggante bi sëriñ Mor Cuun mu ne ko bu ma ko deful bu ma faatoo ci diggante bi nag ndekete bu ko yóbbul woon addiya ji du yegg ndax ba muy dem poroxaan la dogal beksi kon ñun xam nañ kan lan amal affaire moom nag daa wax ci jotaayam ni su ma woy jur kat lu mu amoon du ma ko leble duma ko aale duma ko may dema koy téye waaye ci ngor nag ak jom ci liggéey sëñ Tuubaa te nekkal ko te gëm ko te yaakaar ko te wóolu ko te bëgg ko te doyloo ko màggal gi ñu nekk moo ci njëkk a jëf jëf ci lu mat te dencul dara lu ko fi am murit jox defaa ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi fonk baayam lool keroog bi mu duggee tubaa barab ba ci la njëkk a dem buy jub barab baam bi day summi dàll yi summi mbaxanam summi kaala gi tekk montu bi gaynde nag di jur xar moom lu baax la doon waaye am na jikko yooyu ñun jooyuñu dara ragaluñu dara ndax deedu gàcce dund gu gudd mooy ku jëf-jëf joo xamante ni jëf ju matal la ñun ñëpp ay résultats de la woon ñun ñëpp ba ci man mi di wax a yéen sëriñ bi dimbali ñu ba fukk yiw di taxaw ñu mën faa taxaw ku yiw di nekk ñu man faa nekk ñeewuñu kenn ñeetaanuñu ragaluñu kenn lu ñu war a faj ñu ngi koy faj te Sëriñ Abdourahmane rek ñu dimbali maak samay morom yëpp kon kooku boo ko ñàkkee ñeent fukki at du caaxaan fanweeri at du caaxaan boo ko demee ba caa gis doo ko di nga wéet waaye jaaxlewul nag ndax wéetaay ak jaaxle ñaari bokkul la ndax ñun kum ñu fi bàyyi loon même bu dee jigéen moom la ñuy topp mu bàyyil ñu fi góor gu mat lu mu doon tubarkal la ci jaamu yàlla ak topp ko ak nekk ci ndigal yi te kenn mës koo yedd Grand Dakar gam nga nga xamante ni fa la yaroo bu tegee fauteuil ba ca mbedd ma kenn du ko ni wàccal mag ñëpp ko rus xale yi ragal ko nit nag boo nekkee ci koñ tegu ci dëgg say moroom dañ lay ragal say mag rus la kon ndekete yàlla mooy wutal góor yàlla kuutaay sëñ Abdou Karim Mbàkkeem sëñ Fàllu dañ faa dem siyaare ko mu ni sirif góor yàlla la góor yàlla yi nag bala ñoo dem dañuy defar seen kutaay ba mu wóor ñu doog a dem bàyyi ko fi yàlla nga fi yàgg fàll suñu xel dal na sant nañ Thiès TV bu baax a baax a baax a baax lii ngeen defal sëriñ bi réy na ci ñun waaye yàlla na ngeen yàgg a ñëw di ko jël te tele bi wër wër képp àdduna ñëpp di ko seetaan mu am ay évolution yu am solo ngeen di fi fekk sëriñ bi ñuy toogee jataay yi jamono dina dem ba bu waree wax wax ndax tey may na jëmm ji te nit amul ëpp jëmmam te tey may na ko te boobaak tey mi ngi koy daw waaye gis ngeen bëri na internet bu jël boo jëlee rek ca guddi maam Cheikh la woon te dafa kaalawu boobu lépp mesure barrière jël nañ ko de boo filmé woon Serigne Mor mais ma ngi ko def kenn nga ko def waaye dañoo bëgg nit ñi gis image am moo tax ñu ñaan ko di ko Fall dimbaluñu rek nit ñi jël sa image bu tele ba demee nga dellu ca la nga nekkoon. kàddu yi am na solo. matale nga lépp la la sëriñ bi joxe kàddoom mbokki taal bi yëpp bég nañ ci waaye gën nañ cee xam astuut ndax kenn mënul xam lépp ci sëriñ Abdourahmane Sylla la Fall ci liggéey bu am solo waaye niñ ko waxee rek sànq ba ñuy diisoo ak sëriñ bi ñu sant bu baax jëwriñ Alaaji Jaawara ndax nit ki jëwriñ Alaaji Jaw Alaaji Jaawara men laa koy jaawale sant bi ndax nag nit ku ne rekk sa kilifa dalay sagoo comme ni nga koy sagoo ndax bu nekkoon Thiès am beneen toogin bu mu fa toog kon bu caméra yi ñëwee mu ragal ay boobu ba tey fu ñëwee ànd ceeg moom muy nit ku am pas-pas nit ku taxawu diine nit ko social ku mën a dimbali ay doomu aadama ndax damay faral di wax naan njabootu sëñ Ahmadou Tidiane Fall mën a wax lu ne boole ci dañoo nangoo liggéey te xeebuñu waaw dañoo nangu liggéey te xeebuñu loolu mën naa koo seede ndax miin naa ci ñu bari ñoo xam ne ñoo dëkk Thiès. waaye sant bu baax si Abdou ci naar Fall nga xam ni niñ ko waxee suñu buntu la ndax suñ ñëw bi njëkk ñëw fii ci moom la ko jaarale fekk muy indi ay berneem ci bis boobu lañ sëriñ bi jàpp ñu fasante kóolere boobu ba tey dakkul benn yoon ak suñu yaay na koy géey nga xam ne ñooy exendo ñu sant ko baax gërëm ko waaye sant bu baax ñu àndal ñëpp di wax daal sa waajur ba lam ñaanoon ci tele bii nga ñaanal ñu ko ndax nag ñu ngi yokk sëriñ galo mais ñu nuyu ko baax ziar ko mu nekk suñu wóllëre nekk ca mairie bu Thiès ba dafa liggéey liggéey bu am solo ndax bari na ay ndaw yoo xam ni biñ amee jafe-jafe kayit ginnaaw yàlla moom mii la teewul muy enregistré ay enregistrement yoo xam ni pour wax nañ ñi orienté nan la def ba kayit kon ñu seedeel la ko daal bëgg nga ñaanal ñu ñaan ba sa waajur doon ñaan bismillah ma lam yakun لممكن يا من له كن فيكون ملكتني